Tivaouane Monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye honorable député Abdou Mbow vice-président de l'Assemblée nationale premier vice-président moi-même et avons trouvé euh, sur place monsieur le maire de Tivaouane avons échangé avec euh, le préfet madame la directrice et euh, les services techniques de Tiao. Un malheur a frappé notre pays. Et aujourd'hui, c'est dans l'hôpital de Tiawan que nous avons vécu un événement malheureux. 11 BP ont péri dans un accident. Et nous sommes venus approcher les populations plus particulièrement les parents et tous les responsables meurtris par cet événement pour, partage, pour le partager avec eux, dire notre compassion. Pour euh, encore dire que c'est un malheur qui frappe notre pays, mais nous avons la chance d'être des croyants. C'est la raison pour laquelle nous remettons tout entre les mains du Tout-Puissant qui aura décidé que ce jour sera un jour malheureux pour notre pays. Et je crois comprendre que dans quelques jours, la plus haute autorité du pays euh, viendra ici et sa parole fera foi par rapport à cet événement. donc euh, dañuy gërëm ñëpp ñi fi teew wax leen ni que dañu fi ñëw le ministre Pape Amadou Ndiaye le vice-président Abdoumbo et moi-même, euh, nous sommes venus trouver à Tiaon notre ami monsieur le maire de Tiaon, c'est Diopsi. Avons échangé tantôt avec euh, le préfet ak, ak euh, euh, euh bi ak directeur ñëw nañu massaw massaw leen ñoom masawu waa Tiwaawoon masawu njaboot yi nga xam ni lii seen kaw la dal euh, di wax ni lii lu metti la képp ku ko dégg daf koy mettitlu parce que tout simplement suñu ay doom ñoom la fi suñu borom jëlee tey mais waxaat ko yàlla def na ñun ñëpp aussi ay waay gëm lañu donc euh, dañuy dellu ci suñu borom loolu terewul li nga xam ni euh, war nañu ko càmbar ñu càmbar ko loolu kenn euh, natable wu ko mais wéer na ma ni suñu président de la république dina fi ñëw bu ñëwee euh, li ci gën a yeeyoo dina ko wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant.